alhamdulilahi rabbil alamin mbokk jullit yi nu màggal borom bi taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk waaye di ñaan borom bi jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc waaye jéggal ñu suñuy njuumte noo ngi jullitey sëlmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiciina lahu bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk jullit mi sunu xutba tey mi ngi tënku ci at taassub at taassub muy parparloo dinañ koy woowee l'intolérance mbokk jullit yi maa ngi dénk sam bopp ragal yàlla waaye di ko dénk ñépp di wax ni am na jikko bu ñaaw bu bon boo xam ni sharia daf ko tere islaam da ko ñaawlu ndax melokaan la boo xam ni melokaan bu ñaaw la muy ñàkk xejoo ñàkk yaatu dënn woote taxas walla parparloo tey nag jikko jooju walla jikko boobu dafa tasaaroo ci asaaxa islaamiya dafa tasaaroo lool ci biir jullit ñi ba àgg na sax ci ñi ñu gënoon a yaakaar ñuy taxawu diine ji ci xam-xam ak di woote ci yoonu yàlla ak jamaat islaamiya yi nga xamante ni sunna la ñuy woote loolu ba ngay fekk mu fees ca biir dell jamaat yi ak xarakaat yi da ngay fekk ci seen biir ay parparloo yu jéggi dayoo yoo xam ni boo seetloo danga naan lii ndax lii yelloon na mu am allahumma du ñu généraliser ñu néew ñoo ci mucc ci association islamique yi ak jamaat yi ak këru diine yi jikko boobu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon dawloo jullit ñi bal dafay deñ sax ci koo xam ni mu ngi ci yow ndax deñ ci mooy jikko jooju ku mu nekk ci yow yonent bi nee na bokkuloo ci man boo boolee sa bopp ci manit bokkoo ci moo tax saxaaba bi ñuy wax Jubayr ibn Mut'im nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokkul ci man maanaam mooy même bu ma askanoo man askanoowuma ko mooy ku woote jëme ci woote taxas maanaam jëme ci par parparloo yow daal sa mbooloo rek ku ci bokkul du dara yow sa tariqa ku ci bokkul ci dara yow sa xaraka ku ci bokkul ci dara yow daal balaa ngay séq kenn lenn ñi nga bokkal xaraka ngay séqal ñooñu nga naw bàyyi ñi ci des association bi nga yore ñi ci nekk ñooñu nga naw walla ñi nga xamante ni ñoo la yëg ñooñu nga naw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa minna man daa ila asabiya képp ku woote jëm ci par parloo moo xam ci askan la wala ci xeet la wala ci wàllu diine la nee na kooku bokkul ci man waaye nee na bokkul ci man it ku xeex ngir par parloo xeex rek ngir sa askan dañu ko laal nga bëgg a xeex te teguwul ci islaam xeex rek ngir dañoo def nangam ndax sa fem famille dañuy def nangam non loolu baaxul waaye nee na képp ku woote it jëme ci par parloo ne bokkoo ci ñun mbokk yi islaam day dafa jël li ñuy tuddee l'intolérance nga xam ni moom mooy parparloo nuralewu ko nag jëlewu ko yóbbuwu ko ci benn xeet <coughs> waaye yóbbuwu ko ci benn couleur waaye yóbbuwu ko ci benn askan dafa bëgg nit ñépp nekk benn wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum borom bi nee na daf ñoo def ñu nekk ay peuple ak i société ak i kër ngir ñu jàppante lan moo ñuy boole li ñuy boole mooy diine <coughs> suñu xësee ba nekk ay jullit askan dootul kont man fii laa bokk pël laa dootul compte séeréer la dootul compte wolof la njaago la dootul compte lan moo tax islaam dafa ñëw jox nit ñi valeur bu am solo inna akramakum inda allahi atqaakum ngëneel du feeñ ci askan ngëneel du feeñ ci famille ngëneel du feeñ ci kër du feeñ ci tariqa du feeñ ci association waaye ngëneel ci ragal yàlla lay dellu nit ki la ëpp ragal yàlla moo la gën fa yàlla ndax yàlla mi nga xam ni kat moo xam ñi koy ragal moo tànn ñi ko gënal te waxuñu ci ñun waxu ko kenn kon bul woote ak ngëneel ngir dama bokk xeet bi loolu islaam di bañ mooy daf ñoo indil problème yi dul jeex ndax tax na ay xeet du ñu sëy ci seen biir da ngay dégg kii ne la man duma ma sëy nangam géwél la du sëy géer géer la du sëy ñeeño ñeeño la du sëy nangam tukulóor la du sëy séeréer loolu ñaata problème la indi nga dem ci beneen xeet nga fekk na ñun ku dul ñun duñu la may jabar loolu lan la indi dafa indi jaahiliyal uulaa nga amoon démb te yonent bi ñëwoon xeex ko ba dindi ko ci diggante aws ak xasraj dañoo demoon ba du ñu tuddante ndax bañante noonoo bañ a mayante waaye bi yonante bi ñëwee sallallahu alayhi wa alihi wa ak liggéeyam bu rafet tax na ku nekk fàtte bosam moo tax borom bi taala wa tabaarak ne yonante bi lii boole nit ñi nekkul alal lii boole nit ñi nekkul am-am nekkul daraja waaye yàlla mooy boole nit ñi ak diine walaw anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum kon ndeke yàlla moo leen boole ñun nag bu fekkee dañoo bëgg a dund loolu ku nekk day jël askan teg ko fële nañu xool ci diine mbokk yi su ko defee danañu mën a nekk benn waaye nan la ñuy mën a nekkee benn it nag mooy na fekk atteb yàlla moo ñuy atte atteb yonent bi moo ñuy atte mbokk yi bokkul nag ci par parloo rek ñu ne kii daa bëgg xeetam déedéet bëgg sa xeet du tekki par parloo maanaam nit ku ne am na droit bëgg xeetam maanaam man pël laa bëgg naa pël waaye bëgg gi na yem ci bëgg waaye bu mu nekk bëgg bu la gënal keneen ku dul pël kon loolu tamit dafa jara teey man olof laa bëgg naa olof waaye bu mu àgg ci nag ku dul olof ma xeeb la man séeréer laa bëgg naa séeréer bu mu àgg ci ku dul séeréer ma xeeb la waaye am maa jëm mi nag man olof laa damay bëgg olof dara newu ci moo tax euh, dafa am ku ñuy wax fasila nee na dégg na pàppam mu ne laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko amin al asabiya an yuhibba rajul qawma ndax dafa bokk ci parparloo nit bëgg fameem wala askanam yonent bi ne ko déedéet loolu bokk ci waaye li nga xam ni mooy parparloo mooy nga dimbale nit sa xeet ci tooñ maanaam nga dimbale sa xeet ci tooñ <coughs> sa mbokk la dafa xeex wala dafa tooñ nga taxaw ci wetam xeexle ko loolu par par loola mu ne kon lan la sa mbokk bu tooñee taxawal ne ko yaa tooñ taxawal ne ko yaa tooñ osé ne ko hé newoo ci dëgg ndax loolu dana tax ëllëg dootu ko ñemee def waaye nga bëgg mu jël yat nga jël yat nga xeex parce que njaago la njaago laa joolaa la joolaa la loolu boo ko defee loolu mooy asabiya loolu la islaam di bañ mbokk yi danger bi asabiya nag nga xamante ne mooy par parloo tey dafa dugg ci saaxa islaamiya bi bal dugg na ba ci biir ñi nga xamante ni yaakaaroon nañ ci ñoom ñoo ñëwoon di ko xeex fal feebar boobu dugg na ci seen biir ba nga xam ni jaxasoon ak seeni deret léegi dem na ba ci saaha daawa bi dem na ba ci saaha ahlu sunna yi nga xam ni tey da ngay xool ay duaat yoo xam ne ñu sell lañ ñuy woote jëme ci yoon yàlla lañ seen liggéey yu rëy ya ñu liggéeyoon dafa commencé ay nit di ko yàq bal ñu bokk ci ñoom di ko yàq lan moo ko indi mooy da ngay nekk wootekat ci yoonu yàlla sellal mais ñi lay jege nekk sa wet toujours ñoo lay xañ ñeneen ñi muy déparé ci bëkk néeg déparé ci maa koy jege oustaz bi man maa ko war a jege kenn waru koo jege di ñëw ci ñoom di yàq ay deru jàmbur ba tax borom xam-xam boobu di noonoo ñu ko bëgg te yàlla tax ba tax borom xam-xam boobu di xeeb ñu ko naw su boobaa yow borom xam-xam bi dañ lay def borom benn nopp te borom xam-xam ab daa yi warul nekk benn nopp gaa yi dañuy wax ne yonante bi benn nopp la yàlla ne qul udunu xayr kon yonante bi du benn nopp waaye benn nopp yiw la ndax yàllaa ko wax fu mu jaar mais en tant que yow daa yi munoo nekk borom xam-xam ba xam ñëpp munul nekk waaye nag soo buggee noppalu jëlal ñëpp def leen ci benn mbuus waaye ku bokkul ak man sama entourage ñi ma jege rek nawlawuma la loolu daa yi bu koy def yaa ngi jëm ci échec te tey dafa dugg ci xarakaat islaamiya yi xarakaat islaamiya yépp asabiya moo fa nekk bal li ci ëpp te day tàmbale ca bopp ya nag lay tàmbalee ce qui est grave mooy ca bopp ya lay tàmbalee kilifa ya ña nga xam ni ñoom la ñu naw naw naw naw woon ci xam-xam ñoom ñooy dem bay woote taxas di tànn di parparloo di defal ñii di bàyyi ñii di wax ak ñii di bàyyi ñii di recevoir ñii di bàyyi ñii di jàppale ñii di bàyyi nii loolu borom xam-xam bu taxaw ci loolu yaa ngi gas paxam asabiya te yaa ciy njëkk daanu lan moo tax mooy ñii lay jege mënuñoo nekk say bët il faut nga xippi nga xool surtout nag yore sa bale pour bare wala defal tey xarakaal islaam yi tey day dem ba da ngay gis ci shabaab yi yu mel noonu te loolu dañ ko waroon daw ñun ñëpp ñoo ko waroon daw ndax bu demee nag ba mbooloo mi nga bokk lu ñu fa waxul rek du dëgg su boobaa loolu mooy pure asabiya su demee ba borom xam-xam bi nga naw lu mu waxul rek du dëgg wax dëgg yàlla ittaqullaha mooy ragal leen yàlla su fekkee ni su ko sàmba waxee nga toog bu ko di wax nga ne macha allah macha allah loolu lan la ittaqullaha benn dong la mooy ragal leen yàlla ñëpp ko bokk waaye ndax gémmi gi mu jóge seytaanee la tàmbalee mën pour yow moom rek moo war a wax ragal leen yàlla moo war a wax hadis ñu fonk ko mais bu ko keneen waxee kenn du ko fonk non non loolu musiba la te moo nekk ci saaha lu sunna yi tey li may wax nañ ko wax te dee wala ñu wax ko te dund waaye loolu fi nekk. loolu fi nekk nag mbokk yi mënuñoo topp rek di wax nit ñi njuumte yi ñuy nekk te ñu xool suñu biir il faut ñu xool suñu biir ñun ci suñu biir ñoo ëpp ay sikk-sikk da ngay gis xaraka boo xamante ni amiram mbooloom rek la nawloo. nawloowul beneen dégluwul ñee faalewu leen da ngay gis jamaa boo xamante ni seen mbooloo rek la ñu nawloo nekk ci biir nag di ràbb comme ay lan la ñuy ràbb bu yuutul ankabuut la ñuy ràbb ay néegu ankabuut nga xamante ni néeg la yoo xamante ni mooy ràbbal ay nit utal ay nit ay noon waxal ay nit lu dul dëgg ba tax kee jàpp loola ndeke loolu ndëgg sërëx la inna bu yuut la baytul ankabuut kon borom xam-xam bu nekk war na koo moytu képp ku taxaw ci daawa bi war ngaa moytu loolu mbokk yi ndax umma islaamiya lii ñuy dund tey ci taasubul madhabi wala taasubul xizbil jamaai ndax jadirun bina ndax loolu yell na ci ñun en tant que ay ahlu sunna en tant que ay jullit en tant que ay muslimun ndax loolu yell na mbokk yi da ngay gis ci ñun waxuma ci ñépp damay généraliser ñoo xam ni dañoo am par parparloo ci mazhab loolu indil na islam problème bu mu mënta ragle ba léegi kii danaan man maliki la kii danaan man xambali la kii ne man shafii la lépp lu muy def fa la koy teg même fa mu koy teg shafii bu defoon njuumte wala mazhabam def njuumte dootul gis loolu day gis ne mazhab bi ci laa nekk lu mu qu'importe nu mu munti dem dama koy jëlee te su ma ciy jox misaal comme ñun ñun ñun ñuy dund ci Afrique suñu côté bii nga xam ni maalikee ñoo ci ëpp bal imam Malik la ñuy askanoo tey da ngay fekk ci suñuy wayjur suñuy kilifa suñuy mag suñuy borom xam-xam ñoo xamante ne tey ay jànkat la ñuy doon waaye nga xool bunt bi may ubbi rek ci wàllu julli ci wàllu julli nga gis ku mën a julli jël loxoom yoor ko wàcce ko te ki yàlla yónni xam nga ni loxoom daf ko doon xabdu ci biir julli bal ne yonent yi yàlla yónni ñépp dañ doon xabla inna maachara al ambiya umirna bi taajili fitrina wa taaxiri suxuurina wa an nada aymaanina ala samailina fi lsalaa yonent bi nee na ñun yonent yépp yàlla daf ñoo sant ñaar nañuy teel a dog di yéex xëdd ndax koor dafa metti waaye bu ñuy julli nañ jël suñu loxo ndeyjoor teg ko ci càmmoñ ñi teg ko ci suñuy dënn loolu jàngale bi yonent bi la tey nga mën a gis ñoo xam ne dañuy julli wuuteeg loola kooku tey jii boo ko nee waa sëriñ bi yow ni nga jullee day yonent bi daawu ko jullee lu lay wax dafa la ana Malik yi man ci mazhab Malik laa nekk ndax mazhab Malik liñ ci am fii ci ñun li ñëw ci ñun ci seeni bind xab di dugg ci parce que ñun ci li ñu jot a jàng ci téere yi nekk fii lu mel ni xalil lu mel ni euh, ay ay ay tawdihil masalik yu mel ni risaala ay samru daane yu demee nga xam ay charha ci ñoom gisuñ ca lu mel noonu léegi nag lu mel noonu comme amu ca danga gis borom xam-xam wala mag di julli yoor ay loxoom nga wax mu ne la hé maa li gën a ëpp xam-xam wala nga wax mu ne mag ñee la raw mbaay bàyyi diw day sa morom sëriñ diw foo to fu dafa wax sëriñ diw raw la raw sa baay raw sa maam raw sa nangam sëriñ diw wàlli yu la sëriñ diw xutbu la te sëriñ diw day julli yor loxo imagineel mbokk yi tey ki def lu mel noonu ndax dafa fàtte walla jàngaluñ ko li yonent bi wax boo ko noon ki yàlla yónni attan na koo gam-gam leeg sëriñ diw walla ki yàlla yónni mu attan ko gam-gam leeg imam malik bal xaasha malik malik melul noonu yow julli nii la yonent bi doon jullee nga ne ma man maalik yi laa kon léegi dafa mel ni imaam maalik dafa opposé yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ndax xel war naa nangu ñu jël maalik di ko tollaleeg yonent bi ci wàllu jaamu yàlla lu yonant bi def digle ko ndax war naa tolloog lu maalik wax boo nee borom maalik jàngalewu ko bind ko mu ne la mi ngi ci mazhab bi fekk maalik yayi ñoom ñoo ko wax mais imaam maalik da doon xabdu ba loolu la bind te looloo bir nga wax ak moom mu ne la hé nga fi juddi diw du sa moroom diw du sa moroom diw du sa moroom loolu la lay wax wallahi ladi laa ilaha gayru maa ngi ci xutba su ma way jur yàlla na yàlla yërëm ko suñu premier contentieux ci wàll bii la julli xabd mu ne ma daanaa ko def ba ci àgg bàyyi ko ma ne ko waa ah, papa lan moo tax mu ne ah parce que gis naa diw diw diw diw defuñ ko tey borom xam-xam lañ ma ne ko papa loolu du lay mu ne ah ma ne ko papa Malik imam Malik ak yonent bi ñoom ñaar ku gën mu ne ma ah bu ma ko waxaatee xam nga loolu du ma ko tollale Maalik gën ma ne ma ne ko kii yonent bee gën ma ne ma ne ko waaw jàngale bi yonent bi ndax Maalik la yàlla yónni wala wala yonent bi sama ci boppam wallahi mu ne ma yonent bi la yàlla yónni ma ne ko yowmal qiyaam bu ñu dekkee kan mooy jiite xeet bi yàlla di ko laaj mu ne yonent bi la yàllay laaj ma ne ko ndax yàlla dina indi Maalik di ko laaj ci julli mu ne ma déedéet ma ne ko mbir mi nañu ko bàyyi xel mu toog ba ci yàgg dënn ma jóg ma ne ma Umar kaay ma ne mu ne ma wax nga ma dëgg boo xam ne te billaahi pare naa tey keroog la ko tàmbale noonu la sama way jur nekkee teguñ ci deux mois sama yaay moom it la même chose mu ne ma de gis naa ni sa papa di def te yaa tax kon man topp naa la topp sa papa wallahi lazi laa ilaa xayru te fekk ci xel rek la ñu waxee ak ñoom ak ak ndimbalal yàlla ndax yàlla it nag mooy def ndimbalam waaye ci ndimbal loolu la yàlla jaarale lu mel kon nit da ngay wax ak moom ci xel maalik yàlla diw moo la gën diw d'accord naa neel diw ma gën diw sëriñ la borom xam-xam la wàlli yu la waaye ndax moo gën yonent bi lii jaamu yàlla la yonent bi lan la wax sallu kama raaytumuni usalli man la yàlla yónni julli leen ni ngeen ma gisee may julli yow nga mën a ñëw jullee nu yonent bi dul jullee ñu wax la nga ne parce que sëriñ diw parce que maalik parce que mazhab maalik déedéet boo waxee nit ñu ne la diw raw diw nangam borom bi taala wa tabaarak di nu wax ci alquran ne dafa am ñoo xam ne boo waxee ñoom ne ne ittabiu maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun yàlla daf ñu wax ci alquran ci suuratu araaf ne ittabiu maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun boo xoolee aaya bi ñaari ñaari mbir la digle la ak tere bu njëkk bi mooy ittabiu maa unzila ilaykum min rabbikum mooy topp leen li ñu wàcce mu ñëw ci yéen bàyyi ko ci seen borom te moom mooy alquran loolu loolu la ñu war a topp te moom mooy yonent bi loolu la ñu war a topp mu takki ci ne wala tattabiu min dunihi awliya bu leen topp ay waliyoog ay kilifaak ay xutbu xawsu de déedéet yónniwuma leen de yàlla gis na leen ne nag bu ngeen toppee loolu qalilan ma tazakkarun ay waay waay yéen a gàtt xel kon boo seetloo it borom mazhab yëpp dafa mel ni dañoo dëppoo ci benn règle règle bi mooy ida saxa alxadiisu fa huwa madhabi yow boo ma nee madhab nga topp borom madhab bi nee na boo gisee xadiis bu wér baal la ma wax parce que man sama wax dem pen xoolal imam malik alayhi rahmatullah ak li ñu ko jiiñ yépp lan la wax nee na laysa ahadun baada annabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yuxadu min qawlihi wa yutrak illa annabi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku nekk ci nit ñi danga wax mu am lu ñu jël am lu ñu bàyyi ba mu des ki yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam ndax kooku du juum wa maa yantiqu anil hawa yàllaa ko ci dimbale waaye ku dul moom nu mu toll mën naa juum ndax nit la soo ñëwantee ci saaha ñi bëgg sunna da nga ca gis yu mel noonu yenn wuuteeg yonent bi ñu ñutu koy utal lay mu mel ni na maalikee yi di def ñoom it noonu dañ koy def da ci gis koo xam ne attan naa yoor yéreem mu romb ay dojaram attan na sax ni sunna la bëgg lool naam am na ci droit waaye doo gis jeexital boobu ci yaramam koo ciy waxalum lay wax Abu Bakar dafa daan buubal subhanallah Abu Bakar la lay layalee mbokk yow mën boo doon nattale Abu Bakar ak yow mii lu ngeen tollole yéen ñaar ñaare bi ndax Abu Bakar da doon buubu yéreem buubu ko musu ko def Abu Bakar daaw ko def moom nit ku tuuti la bu takkee yéreem dafay wàcc yonent bi ne yàlla bokkul ci man ak yàlla rëbb na ku sol yére ngir puukare Abu Bakar ñëw ci yonent bi ndax man bokkuma ci yonent bi ne ko bokkoo ci mi may mimman yafaluhu xuyala waa kan moo tazkiya Abu Bakar kan moo ni yow bokkoo ci du yonent bi du moom la yàlla yónni yow nga bëgg a nekk benn Umar Sall wala sàmba Ndiaye nekk naa ci jamaa wala xaraka su ma neexee damay buuba laa boo xam ne Abu Bakar daf ko doon def quoi subhanallah yow taneetoo kële parce que yoon Abu Bakar sax yónni ko bal waaye dañ koy ormal te Abu Bakar daraja bi mu am amuloo ko kon su fekkee da nga bëgg a def loolu dafay delluwaat ci taassub da ngay gis. ab jamaa wala xaraka boo xamante ni yu mel noonu asaar yooyu faale wuñ ko ñoom seen yoon newu ci en tout cas bëgg naa yàlla bëgg naa yonente bi lu sunna la point yi nga xamante ni yenn yi mën naa ko mais yeneen yi pare woo pour def ko déedéet jullit da ngay war di defaru waxtu bu nekk fekk yaa ngi ngir jàngale bi yonente bi jéemal loo mën di ko def loolu tamit war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mbokk yi suñu bëggee sàppe yi nekk benn ñu mucc taasub lu jafe la jafe la bu ñu ñëwoon tey ci problème weer wi fan yële am nañu fi ñëw benn euh, kii doon ma laaj tontu naa leen mais ba ma jëmee ci weer wi dañ koo censuré teguñ ko tax lañ ma laaj problème weeru koor wi na la mën ko senegal weeru koor du fi gaaw a jàpp mu ne ah ma ne ko ah, xam nga lu tax mu ne ah ma ne ko këru diine yi ak association islamique yi mënuñoo tax weer dem këru diine bu nekk daa am commission wallahi lazi laa ilaaha gayru mbokk yi dëgg nañ ko waxante rek te yàlla tax. këru diine yi fii Sénégal kër gu nekk am na commission croissant linéaire kër yu mag yëpp fii ci tariqa yi ñoom am nañu ñu leen di seetal weer ñu leen di informer ñu leen di wax moo tax commission bii ñu fi teg commission nationale bi bi muy départ dañoo départoon kër kër diine yëpp ñu dem fa kër diine yi ku nekk yóbbante benn membre membre ba nga yóbbante mu ñëw bokk taxut tasuloo sa commission sa sa kër da bàyyi sa commission parallèle yónni kenn mu ñëw di teew RTS dañ ko fee def benn at mu normal ñaareelu at bi problème am ñaareelu at bi problème dafa am parce que nan la kër gu diine bu nekk yónni nitam ba pare ñu ne weer wi feeñ na ñeneen taxaw fee ni weer feeñu te pourtant ñeneen weer feeñun am nañu représentant fii RTS mi ngi toog ñu ne weer feeñut kon est-ce que loolu que ñu yónni gëm nañu ko déedéet commission bi li leen tax a jóg. dañoo jóg ngir bëgg benn la sàppe yi mais bëgguñu ko benn la te yàlla tax mais dañ koo bëgg a benn la ci parparloo sëriñ bi li ko neex sëriñ bee li ko neex bi gis nga fukki nit bu ñu dajaloo ku nekk nga bëgg jël li ko neex doo dem loolu moo tax ba léegi commission nationale bi am problème ahlu sunna yi la même sos association bu nekk am na ñu leen di séentul weer dañu waxante dëgg dëgg yàllaa ko moom association yi fii laa wax këru diine yi këru islam yi fii këru diine yi fii association islamique ku nekk am na parallèle moo jiitu commission bii fi nekk sax deuxième commission bi taxul ñu bàyyi bu ñu dajaloo ni weer feeñ na jamaa bi wala association balaa ñoo wax ñoom dañuy consulter seen biir ndax ñoom seen commission saxal na ko wala déet su ko saxal ñu ne non non baal ñu ànd ak waa Sénégal quoi kañ la commission bi de moo commission bi amul njëriñ amul njëriñ ñetteel mooy commission bi li muy dox pour ñu ànd ci ose taxaw. xam nga bu ñu nee nañu ànd ñu liggéey wax dëgg yàlla ku nekk na dalal xilam mais information léegi day tasaaroo de kenn moomu ko bu ñu nee nañu def commission pour di jox nit ñi informer information di leen informer à l'heure gis nga saa bu ñuy séentu weer balaa ñoo séentu weer bu weeri feeñee ñu bëri xam nañ ko bu feeñ xam ne Facebook baa ngi fi internet baa fi comme ñun nan la ñuy yoree commission ba pare ñu bëgg a tënku ñu it ci sunu yëfu bopp balaa 6 heures jot nga xool portable yi commencé feeñ na Côte d'Ivoire feeñ na Guinée feeñ na fële y a effectivement feeñ na bu fa feeñee ñu consulter mu leer ni feeñ na où problème léegi ñu bëgg ne ñun bu ñu ko waxul du sotti bu ñu ko waxul ne ñëpp xaar fan la commission bi jëm loolu ñun ci suñu biir la parce que ba avant ñuy wax weer feeñ na xam nañ ni feeñ na parce que ñëpp gis nañ ko ci internet ñu ngi ko gis ci Facebook ñu ngi koy le kon jamono bi ñu toll ku ku ci dara bëgg defar moo tax waaye ku ne mun na dem ak boppam wallahi ladi laa ilaha xayru bëgg a jugoo rek moo ko indi mais ku ne mun na dem ak boppam saaboo xëyee ñu ne weer wi dañ koy seet balaa 6 heures nga xam ni feeñ na wala feeñu da ngay gis ñu ne la France feeñ na fa Londres feeñ na fa feeñ na Arabie Saoudite balaa timis waaw bu nit ñi toogee di leen déglu di leen xaar ormal leen mais ormal leen nit ñi yéen tam nag bu leen ko indi apéro par parloo ay diw fii diw fee diw nangam su boobaa nag bu demee nag nangootuñoo wax nit ñi ñun boobaa ñun ñooy problème bi ñun ñu war a régler problème yi ñun ñooy problème yi parce que àndatuñ ci yàlla tax parce que dañuy ànd ngir parparloo dañuy ànd ngir mbooloo dañuy ànd ngir diw bàyyi diw mbokk yi léegi ne lu muy tekki wa ma hadihi alfurqa wal ixtilaaf illa natija xatmiya li taassubi almadmum lii fu mu ñuy yóbbu daf ñuy yóbbu rek ci parparloo bu ñaaw bal moo am léegi ci saaxa jullit yi moom moo ci am bu ñu toogee léegi ba weer léegi dañuy toog ba 2 heures di matin 3 heures du matin coow li bëri kilay lay woo naan la weeri feeñ na gis na ko Facebook ba pare bu lay laa jaru nga di ko nëbbatu li am wax ko ñëpp bokk bu ñu mënee def ñu def bu ñu deful point mais fi muy jëm mooy lii ma gis nii muy dem daanaka ci fitna rek lañu jëm kon yonent bi alquran daf koo waxoon wax ñu ko waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon jamaat islamiya yi bu ñu bëggee ànd ku nekk day tas commission am ñun ñëpp ñu toogaat ñu ut benn commission bu restreint ñëpp dellu ci waaye ku nekk indi sa membre yi téye sa jamaa bopp wala nga indi sa jamaa ka fa nekk njiit mu ñëw moom it muy consulter kii yam loolu loolu du dem kon mbokk yi waata si mu yoo hablillahi jamian wala tafaraqu borom bi ne nag mooy leen ci buumu yàlla bi waaye bu leen tàqlikoo mukk borom bi wax na ba tey ci suratu an'am inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chia lasta minhum fi shay nee na ñi taqale seen diine kii fii kii fii kii fee waaw bu fekkee sunna la ñu bëgg a dund ñun ñëpp te ku nekk xam na li yàlla wax li yonent bi wax où est problème lan moo ñu tey ànd nekk benn lan kon mbir mi bakkan moo ci nekk mbir mi bakkan dong la bakkan la mais xam nañ de borom bi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi war rasul waaye man ahlu sunna laa fii laa far kii ahlu sunna la fee la far kële ahlu sunna la fëre la far man jullit laa tariqa bi yow jullit nga tariqa bee ku nekk mën naa nekk ci li mu nekk nekk jullit du ñu ànd dañu ànd ku nekk mun na nekk ci li mu nekk nekk julli bu ñu ko gëmee du ñu dem dañoo bu kenn ku nekk la nga nekk teggi ko indi islaam ñu bokk ko ñun ñépp waatasimu la borom bi taala wax borom bi ne ba tey wa atiu llah wa rasulah wala tanaazau fa tafchalu wa tadhaba rihakum topp leen yàlla roy yonent bi bu leen xëccoo su ngeen xëccoo seen doole jeex su ngeen xëccoo seen doole jeex wax naa ko benn mbokk ci julli gi passé ma ne ko wallaahi lazi laa ilaaha ànd bi ñuy ànd nawlante rek moo fi nekk waaye problème weer kenn amatul problème am bu ngeen xoolee weer wii chaabaan bii am na am na problème bu ndaw xam ne ñu bëri seetlu dañ ko wala déet parce que benn fanu dimanche la ñu jàpp mais am nañu jàpp benn fanu samedi am nañu ko jàpp waxuñ ko dañoo nopp mais xam nañ ko te léegi benn fanu dimanche boobu ñu jàpp moom lañ jàpp kon bu ñu jëmee ba ci tour ba jouru koor gi bu ñu nee weer feeñ wala feeñul problème day amaat kon mbokk yi jullit ñi nañu ànd ci waxante dëgg nekk benn boroom xam-xam yi yabuma leen ustaas yi boroom jamaat yi yabuma leen mais par parloo gi nañu ko teggi nañu ànd te ñu waxante dëgg te liggéey aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa saali muslimina fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim qumu ila salatikum